sant bu baax waaw alhamdulilah. yow moom euh, ñu ñëw fekk la fii nii nga yor sa livre doon euh, réviser xam naa nag euh, ñu ngi jéggalu bu baax si dérangement bi mais dañuy ñëw juste pour waxtaanee li nga xamante ne moom mooy la situation du pays donc ki nga xamante ne moom mooy Assane Diouf dañu ko jàpp defeere ko ci vidéo boo xamante ni ça depuis six mois le défunt juge Samba Diallo l'avait même jugé sur cette vidéo léegi euh, et de l'autre côté ñu gis euh, beneen nit boo xamante ne aussi dafay def ay vidéo moom tamit di menacer ay nit di saaga ay nit mën naa tudd turam muy euh, le Dof ndey nan nga mën a jàngatee ñaari situation yooyu noonu ci sa xalaat. ok merci beaucoup jërëjëf waaw man moom lu may wax rek par rapport ak lu ma gis ci pays bi dafa xaw a métti lool parce que ñun ndaw ñi tey boo xoolee ndaw ñi ñoo commencé di révolté wu. parce que dañoo am loo xamante ne dañ koo gis ci yeneen pays tey boo nekkee da ngay suivre ak aussi nga commencé jàng nga am yeneen niveau yi nga commencé di réfléchir nga gis nit ñi ñu ngi créer di teg nga xool nga posé waat question nga ne pourquoi pas ñun yaakaar naa Assane Diouf loolu moom moo tax mu gën a révolté wu di wax mais du dara du nekkul rewaan rem ubbee leneen ak leneen mais juste rek pour soññ nit ñi ñu xam ne ñun mën nañoo demal suñu bopp mais quant à nag euh, comme ni luñ ko jàppee moom loolu moom peut-être lu ñuy wax euh, instant bii nii dañu war a muñ rek ñu jàpp ne ñu xam ne lu fi des bareetul te xale yëpp fi ñu nekk nii dañoo takku pour xool kan lañ mën a jël koo xamante wóolu nañ ko pour ñu mën koo teg pour xool nan lañ mën a doxalee suñu bopp te yaakaar naa ne loolu lenn rek moom moo ko mën a génnee ñun ñëpp ñun si suñu situation bi mooy lan ñu jël suñuy carte yi ñu dem xool inscrire bu baax après bu ñu paree ñu dem xool kan la ñuy choisir koo xamante ne peut-être indil nañu loo xamante ne lii nii buñ ci jàppee dinañ dinañ ci gis suñu bopp ñun yëpp waaw pour ñu mën a doxalal suñu bopp waaw parce que man bu nekkee tey def naa benn jàngat tuuti rek par rapport ak euh, avancement pays bi man def naa benn au moins def naa voyage gis naa xam naa nu muy doxee te boo xoolee tey Sénégal war nañu mën a romb fii nii te am na ñu bari nu ñu dañoo dafa dañoo naw Sénégal boo demee yeneen pays sous région yi da ngay gis ni dañoo naw Sénégal waaw pourquoi ñu naw ñu parce que nu ñu mel ak nu ñu mën a jàppee suñu bopp te aussi ñu mën a liggéeyal suñu bopp te xam nañ ne am na loo xam ne génne na fii xale yi ak ñëpp paay ñëpp ñoo ci war a mën a bénéficier waruñoo jël rek ñu jël ko ñu def ko ci benn gang rek après à la fin lu ñuy wax développement d' abord day commencer d' abord ci réflexion uh-huh. waaw réflexion mooy lan loo xamante ne tey nit ki bu ko réfléchir xam ne bu ma tegee point bi ma génnee point bi mun naa am dara ci mm-hmm. noonu lañ mën a doxee te jàpp naa ne tey Assane Diouf lu ma koy ñaanal rek yàlla génnee ko fu mu nekk noonu mm-hmm. mais gën a góorlu mu xam ne ñun ndaw ñi xam nañ lu muy xeex mm-hmm. te ñun tamit peut-être lu ñuy wax amuñu moyen yi pour xeex ko waaw mais nag Eh, lu ñuy lu ñu koy ñaanal rek ñaanaluñ ko kenn nag ñaanaluñ ko kenn mais nag nañ indiwaat suñu bopp ñu xam ne ku ne suñu fii àdduna bi kenn yàgguñu fi jaar-jaar la rek waaw dañuy génn dem keneen ñëwaat toog te bu ñu xoolee fu ñu nekk nii pays bi fu ñu toll nii nii nii nii àdduna bi fu ñu toll nii dara jaru ko fi dara jaru ko fi kon donc war nañoo mën a góor góorlu daal ñu xoolaat suñu bopp ñu xoolaat suñu doxalin ñu xoolaat aussi ñu xam ne mag ñu baax ñi ñu fi nekkoon dem nañ te bàyyi nañu dëkk bi te ñu tamit dinañ ko bàyyi dinañ dem bàyyi ko fi kon donc nañ sooraale suñuy doom ñuy ñëw ak suñuy seet setaar yuy ñëw moo tax nag lépp lu ñu mënta def rek nañ ko def ci loo xamante ne ci teggin ak ci ci ci yar waaw man daal loolu laay loolu laay ñaax ku ne daal na ci na ci bàyyi xel bu baax a baax man daal loolu laa amoon daal sama benn point de vue boo xamante ne nag euh, loolu laa bëggoon a sànni ci ci ci. kàddu gu mujj gi waaw amoon lay ñaax li nga xamante ne moom mooy la jeunesse sénégalaise maa lay dégg sa biiru wax yaa ngi wax euh, suñu ay carte mais instant bii nii ñi ngi jëm lu ci ay élection te actuellement kenn mënula wax ni diw moom mooy candidat wu diw wala diw moom mooy candidat wu diw loolu tamit xaw na tey xelu nit ñi ci lu bare bare bare waaw yaakaar naa ne peut-être instant bi nii nit ñi yëpp loolu moom moo nekk suñuy kii question mm-hmm. mais nag loolu lu may wax rek lu may bi mu xam ne peut-être ku fi nekkoon moom mooy suñu monsieur Abdoulaye Wade suñu papa ñi jaar na fi jàll na kon donc am na ñoo xamante ne dinañ jaar jàll te ala kulli lu ñuy wax kenn du fi toog ba ilaa yow mi din déedéet waaw lu mu yàgg yàgg yàgg di nga am benn jour di nga dem kon donc nag man lu may wax rek carte yi moom na ku ne préparé rek bu ñu waxee fii la nga dem wër même bu nekkee sax dañ la ne wax eh, demal uti kayitu suukar boo xamante ne ak Guinée Guinée nga koy jëlijee fexeel nga dem uti ko pour nga ñëw mën a inscrire lu ngay xeex nga xeexa ko sa carte waaw man daal loolu laay wax ku ne daal na nañ ci jéem a góorgóorlu ci loolu noonu waaw carte yi moom moom mooy l'essentiel bi carte yi moom mooy lépp waaw bu ñu paree ci loolu noonu euh, ma gën a waxaat ndaw ñi bu ñu toog xaar kenn nañ demal seen bopp lépp loo xamante ne tey yaa ngi nekk université di toog di xaar bourse ak leneen ak leneen mën ngaa toogaale si suuf xool lan nga mën a liggéeyal sa bopp en même temps nga mën a développer sa bopp parce que tey internet baa ngi fi euh, connexion bi am na ku ñu bari ñoo xam ne koo gis mu ngi yor téléphone boo xamante ne am na connexion bul jënd sa connexion boo xamante ne un mois te amoo dara lu nga ci bénéficier wu mun ngaa def sa développement personnel mun ngaa def coaching mun ngaa def lu ne ak lu ne mu ngi ci biir internet bi mun nga ko mën a jàngal sa bopp waaw kon donc fu ñu nekk nii technologie dafa évoluer de telle sorte ko tey nit ku ne mun na jàngal boppam am ay certification yu bëri yu nekk si biir internet bi mun nga ko amal sa bopp fekkee xoolal xaaroo kenn waxoo kenn defal ma te loolu boo ko amee mën ngaa demal liggéeyal sa bopp waaw man daal loolu laay wax te aussi nañ gën a góorgóorlu si technologie nañ gën a góorgóorlu ci technologie àdduna bi fu ñu nekkee nii dafa développé de tell sorte ko ñun bu ñu yéexee bu ñu kiyee tuuti rek dañuy tardé kon donc ñun ñoo war a mën a développer suñu bopp te ci digital lañ war a mën a développer suñu bopp waaw nañ gën a ñaax suñu bopp daal mun nañoo nekk université di jàng ak primaire lépp mun ngaa gën a mën a ñaax sa doom pour mu gën a góorlu ci technologie man daal loolu laay wax ku ne daal ok ok merci beaucoup jëre ngeen jëf yéen tamit jërë ngeen jëf. Fall maa lay nuyu. Eh, ñu ngi lay siyaar Baye Fall ñu ngi lay siyaar baax a baax ñu ñëw waxtaanee kii nga xamante ne moom mooy euh, Assane Diouf dañ koo jàpp defeere ko ci vidéo boo xam ni euh, yàgg na def na six mois même euh, ki nga xamante ne mooy sàmba Sall moom moo ko ci atte woon donc yow tey jii nii nan nga ñu mën a wax ci loolu noonu lii gars yi di jàpp di tëj. waaw bisimilah salaam salaam waaw àddina waaw. monde entier daal waaw rawatina suñu seen bi. fi nekk daal waaw gën a rawatina xolool fii fii ñu taxaw nii maanaam alak bar waaw waaw tey waaw pour ma wax sa Assane xama xama pour man xama warul sax gudd lu ndaw la ko quoi nañ ko may salaam nañ ko may jaamam waaw nañ ko may jaamam daal waaw ko nañ ko may jàmmam donc moom instant bi nii ñi ko jàpp tëj ko ci vidéo boo xamante ne instant bi buñ koy toppee def na si mois te ñu ngi gis ay yeneen nit yoo xamante ne tey jii nii aussi dañ leen di jàpp ci ay euh, loo xamante ne teguwul fenn mën naa la citer par exemple wala ma jox la benn exemple temps yi nii nii yàggul dara gis nañ euh, koo xamante ne mën naa ni euh, Dof ndey tey jii nii moom mi ngi def ay vidéo di di di saaga nit ñi di menacer nit ñi parce que xaritu sa kii nii di doomu président bi moom mooy xaritam Amadou Sall yow nan nga gisee loolu noonu. waaw waaw waaw waaw loolu noonu man mun naa tontu lu bari quoi parce que man xama moom jëmu jooju man man sama gaañaan la kowaa waaw moom xama am na luñ dund quoi moom sama gaañaan la waaw moom su ma xoolee xam naa dina xam quoi moom sama xama dund nañ sibiti dund nañ sibiti dund nañ sibi dund nañ sibiti waaw man daal jantal men laa ko ma sa xamee amaana nag nit ku nekk da ngay jàpp ni xam waaw peut-être nag moom xam nga noonu la mën a gérer boppam pour xam nga parce que fii xam nga ñun xam nga instant yii li ñu jàngal ñun jeunes ni nii lu ñu jàngal xam nga waaw noo mën a géemee ba génn ci rek amaana nag moom noonu la mën a géemee xam nga ba kii waaw bu dee erreur la tamit moom du ko xam de nit ñi ñoo koy xam wala ma noonu laa ko jàppee waaw parce que xam nga chaque nga dégg fi lu gën a waaw doy waar loolu noonu. waaw te kenn rayul boppam voilà peut-être moom dafa jàpp ni moom noonu la mën a géemee pour mën a gérer boppam waaw mais nag mooy loolu waaw bu ko kenn jàppee bu ko kenn xoolee sax waaw instant yii nii Macky loolu la jàngal gars jàngal gars yi. waaw xam nga instant yii nii moment bii nii malfaiteurs yi lañ soxla te bu élection i passé malfaiteurs yi la ñuy wër di leen dugal si kaso si kaso yi instant yëpp lañu ñu waaw. pour di leen recruter di leen dugal seen business yi waaw loolu laa gis man man lu ma gis laa man njaago or bi waaw waaw or bi waaw kon tey jii nii yow li li li euh, Dof ndey def yow tey jii nii yow bettu la kon non man man gisuma lu mu defan ah. gisuma lu mu defan ah. waaw na benn booy ñoom ci affaire Jakarta ak yooyu noonu loolu moom loolu moom loolu moom moom la concerné quoi waaw moom la concerné waaw man ko sa sa gaayen moom sa gaayen la dund ngeen ci biir dund ngeen ci biti tey boo amoon loo koy wax lan lay doon. man lu ma ko waxee mooy maanaam xam nga mooy loolu man lépp lu waay di xam nga di dugg rek xam bul dem ba si biir nga si nga si dellu ginnaaw waaw waaw nice nice moo tax loolu mooy waral maanaam lépp looy dugg rek xama nga waaw na la ñor rek. bu dee loolu ñor na ko xoolal dara waaw bakkanam sax bu si demee sax mooy loolu sañ Fallou waaw parce que instant yii nii loolu loolu loolu la ñuy jàngal waaw instant yii nii xoolal malfaiteur rek lañ soxla waaw buñ ne kii moo gën a nekk bandi yow la wër. nag yu mag yi la ñuy wër bi bu élection yi passé xoolal ñu xam nga ñu commencé il faut traquer les agresseurs voilà kese point zéro. kàddu gu mujj gi. kàddu maa leen di gërëm yéen man tey sax xoolal par occasion laa laa day yéen nii mais man xama man habitué wu ma sax xoolal même sama portable sax di ci wax fii nag àll bar la gédo la fii amul bandi fii daara moo fi am tournel ne dama bëgg mu tourné mu xool da nga koy jël appareil nga xool marmite bi kër yi suñu yaay boo ngi nii toog li fi amoon amatu fi xam nga fii daara la waaw. waaw ci lépp ci kaw yoon nag. jaamu si yow. jaajëf jaajëf maa leen di gërëm maa leen sant. Fall delloo siyaar Fall bu wér. na ko waay màggal nañ sant bu wér sant yàlla bu wér a fekk la sa secteur fii ngay euh, mission li nga xamante ne moom mooy kafe gi mais dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy euh, Assane Diouf ñu jàpp ko defeere ko ci vidéo boo xamante ne yàgg na tonk ki nga xamante ne moom mooy juge Samba Sall sax moom moo ko ci euh, atte woon ci vidéo boobu tey jii nii ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Dof Ndeye euh, muy saaga te dara fekk ko si nan la ñu mën a expliquer loolu tey nooñu ko mën a expliquer waaw euh, affaire bi daal si nu ma ko jàngatee quoi man personnellement sama gis-gis affaire de politique la quoi soo xoolee ñun genre Sénégal bu nekk nii. gars yi ñëpp focaliser wu si portable affaire digitale xam nga TikTok bi vidéo yi léegi dem na ba politiciens si boppam dañuy basé wu si ay vidéo yu ñuy fay nit yi xaalis wala ñu leen di proposer ñuy wax nit yi de n'importe quoi comprendre nga te par rapport ak ci citoyen boobu jóg di kaasal dëkkam ngir bëgg réewam kooku ñu koy jàpp di ko teg ay daan di ko tëj xam nga di ko tàqaleeg ay mbokkam jàpp naa ne daal loolu du dëgg du yoon mais nañu xoolaat genre verbalement quoi conjugal lu ñuy wax parce que tamit dañoo nekk si dëkk boo xam ne dëkk démocratie la quoi xam nga mais démocratie dafa dafa nekk loo xamante ni da ngay ñi la jiite faut nga respecté leen tamit quoi xam nga mënoo jël tiim sa écran jël sa portable di raconter du n'importe quoi di ko wax suñu kilifa yi après xale yi tamit aussi xam nga bi ko gisee waaw waaw waaw te du dëggu quoi alors que xam nga mënoon nañ ko gën a rafetal mais dof de selon que lu muy def ni ñëpp xam nañ ni influence quoi Amadou Sall doomu Macky Sall moom rek lay topp nee na comprendre le fait que mu koy topp nag mu ngi koy jox ay milliards ba pare muy neex di dagg yaramam nekk si réseaux sociaux yi xam nga ñun yooyu noonu muy def xam nañ ni gëmmu ko. dellu di ndellu di wax lu ko neex te loolu noonu muy wax noonu pour pour xaalis bee xam nga loolu du yëfu góor quoi ñun suñu dëkk moo ñu taxaw waaw jaral nañu lépp quoi ngir suñu réew avancé ay doomu dëkk bi lañ. fi leen juddoo nee grandi sàqu baax wër na sëñ Tuubaa baax rek la ñuy sàqu sàqu ñu leen ni daraay banditisme wala daraay vagabond ñun dañoo judd fekk suñu waajur yi bu baax suñu maam yeeg ñoom Cheikh Amadou Bamba waaw dëkk bi lu dul baax daal jeunesse bi ci loolu la ñu war a consacré wu bàyyi affaire politique yi bàyyi lépp topp sëriñ bi ñun sëriñ bi la ñuy topp ay ndongo taalibe lañ waaw ay murid lañ teewul Cheikh Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou lu mu ñu digal topp ñu politicien lijjantiwu ñu ko ak ay milliards am lu mu am na ko téye politique ñoruñu président ñoruñu parce que ñoom ku fi nekk ku fi ñëw rek sa bopp ngay lijjanti lijjanti ak ñu nekk sa wet gars yi buñ nelaw quoi nga ay dof ndey li ñuy def ni yëpp papa amul sens barki Seexul Xadim Mbàkke parce que moom moom boppam quoi la tal xam nga ñun ñëpp ñun fii nii kuñ fi woowoon fay ñu junni nañu ay Macky Sall ti seen Macky Sall ak nii noonu dañuy dem parce que yoruñu mais bu ñu gisoon tamit sàncee journée julli non dañuy dem liggéey parce que bëgg nañ teral suñuy waajur gars yi nañu xam nga dañu may affaire quoi bàyyi affaire yi ñuy jàpp ay Assane di ko tëj bàyyi di ko sonal ak keneen ak keneen fii nii patriote boobu Sonko woote keneen ak keneen woote ko bëri na mais gars yi dañoo dem ba ko ragal parce que prison baaxul bàyyi mhm. Assane Diouf lu mun a muñ ak situation yu mu am ba mun a maîtriser loolu noonu keneen ak keneen ak keneen keneen munu ñu ko te ñoom bëgg nañu wax comme lu Assane Diouf wala lu ko raw comprendre nga mais nañ xoolaat maanaam ñu ngi koy waxee quoi parce que tamit dëkk boo gis dafa am njiit am état mënoo tiim sa écran di saaga état di wax loo xamante ni teguwul maanaa am nga c'est pas normal quoi da ngay influencer sax jeune jeunesse bu ndaw bi xam nga ñoom tamit ñu nekk si un hiérarchie. ci loolu laay ñëw mooy ci jeunesse boobu noonu nga wax parce que instant yi jamono jii nii gis nañ ni politiciens yi jeunesse bi la ñuy topp te ku ci wax wala ku ci def ay discours rek dalay lay naan jeunesse jeunesse jeunesse est-ce que jeunesse boobu noonu ñuy wax ñoom nekkuñu di leen euh, nax wala wala lan. si dañuy inculper dañuy dugal jeunesse boobu ñooy taal mbedd yi jeunesse boobu ñooy lakk bis yi baa ñun bu ñu ma su ma dee liggéey damay dem xaar 30 bu fee su ma demee taal 30 bi lan laay Macky Sall est-ce que doomam dina dugg si bus yi ah est-ce que ki ko jege dina dugg si bus yi ba il faut que ñu yeewu tamit ñun jeunesse bi parce que ñun ñooy avenir réew mi bu ñu xaalis tiital bu ñu lenn àdduna tiital nañu waaw nañu taalibe rek ñor déggal suñu waajur yi liggéey jaamu yàlla yàlla suñu borom bëri na sutura incha allah te réew mii nii kenn mënu ko taal wax jee bëri rek policiers yi nañ def seen xam-xam ak def seen i pexe yëpp mais mënuñu si dara Sénégal réewu Bamba la ak El Hadj Malick ak Boukounta Ndiassane ak Baye Niass waaw Limaamu Laay waaw sooy lim sax da ngay jub waaw. kàddu gu mujj gi li ñuy doon. kàddu gu mujj gi moom mooy di rafetlu li ngeen di def nii parce que waaw ñun daal maanaam sénégalais quoi li ñuy naan amuñu maanaam presse bi lañ war a sant ndax presse bi ñooy ñëw defal nit ay micro trottoir comprendre ñun ñi ñu jiite sax bàyyi ñu xel loolu laa jàpp. parce que doo dox ba gis fii offre d' emploi wala dara doo gis dara léegi ñoo xam ne dañuy ñëw di bëgg la sacrifier loo sa life te nga am papa am yaay ñu yaakaar si yow et en tout cas daal maa ngi xoolaat maa ngi waxaat gars yi ñu gën a sensibiliser wu gën a xam seen bopp gën a xam ne réew mi réew waaw réewu jàmm la réewu salaam la si barke weeru sóoru ramadan bi ñu nekk ñu boole xol yi ñëpp jàppalante solidarité bi daw fi suñu réew jëm kanam réew mi loolu la soxla dimbali ndaw yi ñu liggéey nag waaw wasalaam jërëjëf.